askan wi soo bëggee xam seeni i soxla euh, xam nan nga ci taxawee euh, da ngay dem déglu leen kon boog euh, moom ni mu koy defee ci conseil des ministres délocalisé ñun tamit bi ñu denkee ministère bi ñu commencé ci at mi nag li ñuy wax ay CRD comité régional de développement boo xam ne bii ñaareel bi mooy fii ci région de Thiès lañ ko defee liñ ci jublu mooy wax ak askan wi wax leen li nga xam ne moom la ñu jotoo defagum ci mbirum ndox ci mbirum assainissement ak déglu leen ñoom tamit euh, lan mooy seeni bëgg-bëgg lan mooy seen i ay réclamation euh, lan mooy seen i soxla ñun tamit ñu wax leen li nga xam ne moom la ñu am comme euh, yéene pour def ko ci région bi ah, suñu méngalee nag yéene bi ñu am ñun ak ñoom seen i bëgg-bëgg loolu daf ñuy may ñun ñu suñu programme ñu gën koo taxawal mu gën a méngoo ak ñoom Euh, li nga xamné nak mo am moy ci li ñu wax ñom amna ci lo xamné ci budget 2020. bi mi ngi ci déjà dañ ko def moy forage yi nga xamné dañu nekk en panne directeur général lu OFOR nee na leen forage euh, def nañu appel d'offre yi ñaar fukki fan ak juroom ci mois de février ci lañuy def euh, euh, ci lañuy xam entreprise bu ban la def su amul benn xëccoo ci entreprise recours au niveau de l'ARMP ci weer bi ci normalement liggéey bi war naa mën commencer pour ñu defaraat forage yooyu. yeneen yi nag soxla yoo à long terme la dañ ko pour régler ci déjà gouvernement na pour régler ko assainissement liguey bi fek mois de juillet normalement dana paré wax nañ fi tamit euh, ndox yu manqué quelque fois ci ay booru mbour wala dara wala euh, ndox mi nga xamné moy joggé ci biir souf ci forage ni ñu koy manqué xëj dana am lu muy jural ëllëg euh, région de Thiès fofu dalal nañ sen xel ne leen usine Kër Momar numéro 3 bi ñuy def mu wara indi lo xamné li dana tollu ci ñaar téeméeri junni ci mètre cube ay ndox mu ñaar téeméeri million ci ay litres litre ndox euh, yëpp duñ ko jël yóbbu Dakar daf ci am loo xam ne lii dañ ko jagleel fii Thiès ak agglomération bi beneen bi dem mbuur te waa mbuur yi gis nañ ni tiw yooyu déjà suñu aw ci route nationale bi gis nañ ne ñu ngi koy teg loolu mooy tax ndox mi kenn du ko xañ euh, manque yëpp ci forage yi te dana am saafara bu muy indi ci euh, ni ñuy surexploitation ndox mi nga xam ne moo nekk ci ci biir suuf si ministère bi amoon ñetti réunion yo xamni ne def na ak Aquatech benn bi ci ñom sax Aquatech ay ay groupement la bo xamni bi ay canadiens ñoo nek ak ay sénégalais ñoo bokk pour pour di gérer ndox mi ci région de Thiès ak Diourbel bi nga xamé né joytu yoyu amna oo nañ leen ah, ñoom jël nañu ay engagement yoo xam ni nee nañ danañ ko def ci ci ci fay nit ñi ci délai ci toppatoo affaire u électricité bi ah, ak euh, toppatoo euh, forage yi su paanee ñu koy def wala ñu koy defaraat ci lu gaaw ah, loolu ñi ngi leen di ñi ngi leen di Euh, ñi ñi ngi leen di surveiller ci engagement yooyu ñu def wax naa leen ne diir bi su jotee su fekkee ne engagement yi respecté nañ ko xaarit ñu continuer su fekkee ne ñoom gis nañ ne mënuñoo respecté engagement yi su boobaa gouvernement bi dana jël yeneen dogal